majorité motax tax président Macky Sall waye lolé bo moytuwul la ca cëppaandaw ga la muy jur du doon lu koy neex Alassane Ba. njiitu réew mi Macky Sall mu ngi wéyal ay audience am ginnaaw jibooka tuuru Alioune Sow la ak Cheikh Diallo bu ñu sukkandikoo ci Momar Diong day jéem tabax ak majorité bu yaatu ci wétam analyste politique bi gis na rapprochement diggante Macky Sall ak Aliou Sow lu ko bett la wante ak communicant bi di Cheikh Diallo xel mënu ko xalat ku melni Aliou Sow jege yoog président de la république du la war a bett li tax du la war a bett mooy bi jamono yi nga xamee ni Macky Sall nekk na premier ministre Ablaye Wade am na ñaar ci ministre yi mu doon liggéeyal ñoo xam ne ci la sukkandiku woon pour liggéey liggéey muy Aliou Sow ak Aïda Mbodj boobu jamono Aliou Sow yore ministre de la jeunesse Aïda Mbodj yore ministre de la femme te kenn ëmpaliwul ni ndaw yi ak jigéen ñi ñooy catégorie yi ëpp solo ci parti politique président de la ci boppam moom moo waroon a am jeune di recevoir Cheikh Diallo ci jamono yi surtout nak bi nga xamee ni kenn umpalewul Cheikh Diallo ni mu taxee woon ci mbirum traque des biens mal acquis ba gën a dugal Karim Wad directeur de publication bu Vision Mag gis ni njiitu rew mi mu ngi jiital politique ak action yi nga xamné gouvernement bi mu ngi koy tek mu di mbir mi nga xamné ne mu ngi koy regretter. li ma jàpp mooy boo xol xool euh, rew mi coppite yi muy indi ci gouvernement bi dafa melni alliance politique moko ko lal.

ñu génne ko tek fële jëli Aminata Touré parce que bobu jamono yaakaaroon nañ ni soxna Aminata Touré li président bëggoon ñu jëmmal ci walu politique action gouvernementale mom dina ko mën. ci dynamique bi ni mel nak askan wi mën nañ ci sanctionné njiit réew mi di Macky Sall mu di gis-gisu politologue bi. parce que dafa melni président de la République lu mu digoon Sénégalais ci walu rupture te rupture boo de dee dégg li ci gëna japp moy rupture ci ñuy doxale politique rupture ci tanef bi. rupture ci def ci ku nekk fa mu yeyoo ak la mu yeyoo ak li méngoo compétence am nga teg ko fa loolu amul gis nañ ni logique politicienne moo gën a diriger choix yi. bu fekkente ne bëgg-bëgg leaderu APR bi nekk na tabax majorité bu yaatu ci wetam analyste politique bi gis ne li ni mel mën na ko jural ay gàllankoor ci avenir ngir mën a safara coow li ñu xam kon euh, lan moo ca ne dëgg.